bu am ci réew mi hmm. li may wax nag message boo ko jotee vidéo bi nga àll ko président Ousmane ko mu déglu ko ak ministre bi yor wàllum gone yi yi jàng comme fan yi jàng xew moo tax mën ne naa la nettali histoire bi ni mu demee euh, girasi la moom a kay ak gone gi la ki nekk ci gone gi gu ñuul gi dëkk sant Diouf Abdourahmane Diouf bu mën a jot ci vidéo bi dina ko arrangé defe monsieur le gouvernement, Astafoula, monsieur le président de la République, monsieur le Jamaï Faye, ISFA, la école bi ISFA Mang nga fële ca Tivaouane de école bi ñuy wax Jean-François Dassy du école privée catholique di école bu baax nag waaw monsieur le président de la République xam nga ISFA lu mu def gone yi da hypothéquer seen avenir maa ko wax monsieur le président ISFA nan lay jëlee soixante élèves yu def terminale dem inscrire un candidat libre parce que mom amul agrément pour def terminal euh, terme juridique technique yooyu dama ko dul miin waaye dinaa ba laa xati ba expliquer rek no problème bi école boo xam ne parents d'élèves yi ñu ngi fay entre cinq cent et six cent mille francs kon ñooñu war nañ leen a wekkaat respecté leen nga jël seeni doom inscrire leen candidat libre te waxoo ko parent yi waxoo ko élèves yi bàkki téere maam yàlla monsieur le président bu fekkee ne lii ma lay wax waxee wuñ ma ko nii yàlla naa dee dugg safara nii la ma ko parents d'élèves yi waxe nee nañ yëguñu tinuñu pour ñoom seeni doom dañoo nekk di def un cursus normal comme tout élève de ce pays ñu inscrire leen ñu fay lu ñu war a fay ñu inscrire leen comme élèves yi ñu inscrire ñu dem dugal leen ci programme bu normal danga ma ki danga ndekete école bi amuñu agrément ñu dem jël xale yi hypothéquer seen avenir yóbbu leen def leen ay candidats libres 67 élèves monsieur le président xam nga nu ko parents yëgee noonu laaj ma question la balaa sama question ma wax la tout de suite ma nett la nan la ko parents yëgee daf cee am ko doomam dem xool gis ne comme jàngkat la te note yu baax la doon am dans les classes antérieures mu ne lii ay erreur la nañ dem pour wax président jury pour ñu corriger waatal ko copie mu dem président jury bi ne ko yow kët candidat libre nga amoo droit à une seconde correction monsieur le président on est dans quel pays non damay laajte am naa droit laaj ko on est dans quel pays ba tax ay dur ay nit sa permettre d'avoir l'audace da yàq avenir ay xale yoo xam ne ku ne xam ne ne xale buñ ne sa papa kat cinq cent mille la lay fay wala six cent mille ngay jànge ci école bu baax ku ne xam ne xale boobu effort yi muy def ak di ko daj pour réussir ak notes yu baax yi ñu doon am ci classe antérieure yi rek justifier ne que ne école bi moo yàq seen avenir moo leen pénaliser moo yàq seen année scolaire parce que am na ci ñu am note yoo xam ne waroon nañ mën leen reprocher kii bi xamu leen parce que seen livre de connaître. ko machine bi mënu leen reprocher heureusement pour eux ba 16 jàll nañ ci au premier tour mais li ma li nga xam ne moom la parent yi di ngun-ngune sax nag nga xam ne si ni ñoom waa école bi xam na ne def nañ erreur bu fatale ci seen école ah ba tax ñu dem négocier d'après les parents ni ñu ko waxee ñu dem négocier ak président jury bi pour que ñi nga xam ne si ni ñoo jàll deuxième tour ñëpp am te noonu la demee tous les parents d'élèves ils ont constaté que négociation négociations entre wa école ak la ak ak ak ak ak ñu yor wal examen yi sen dossier yooyu ñom ba tax ñu jall ñep ñi desoon ñu jëloon ñu demoon deuxième tour ñu jotoon jall deuxième tour hmm? léegi monsieur le président monsieur le premier ministre euh, cher ministre de l'éducation et de l'enseignement supérieur solution bi lii école yi def loolu ci réew mi te boo demee office di bac ñoo fees dell ay parents yu ñëw di réclamer ndax seen doom candidat libre lan te nangam ak nangam yëguñu ko woon et cetera léegi liy solution bi mooy école yooyu dèjà nañ leen teg ay daan waaw nañ leen teg ay daan ñaareel bi chose mooy que ñu yombalal leen affaire agrément yooyu bañ mën cee jot ndax kon am droit à jàng comme ni ñu war a jàngee jàng école yu bëgg a jàngee te sañ a def.

wax ak ñoom bañ jàpp def na nga xam ne déwén ñoom seeni doom di leen jàng si ci école sans fay un franc CFA loolu solution jalgati yoon moom teg ci yoon rek daan bi daa war a saf sàpp ci ñoom waruñ cee génnee nii waaw xale yi ñoo nga feebar ñii boobu léegi ña ngay jooy parce que mun ñoo gëm que ni ñu seen bac wala nangam ak nangam am nañ problème mu correction ñu dem ñoo leen amoo leen droit à une seconde correction

il fallait ma jàllale message bi pour cette école ISFA fële ca Tivaouane Pël nan dem lijjanti la fa am waaw bu woon président jury bi li mu wax ne nan indulgent ak xale yi kon ñëpp lañ ñu jàlloon oral sax gëmoon dinañ dinañ dinañ leen kiiwaatoon waaw léegi nag dossier baa ngi noonu dossier baa ngi noonu bu ñu amoon ay livre machine yi dina leen dina leen reconnaître am si ñoo xam sax dina leen mën a repêche mais candidat livre lañ inscrire moo tax si amuñ sax livré waaw donc nañ ko lijjanti le plus rapidement possible ñu xam école yooyu pourquoi ñu def loolu pourquoi ñu def loolu di ko nëbb parents yi pourquoi nëbb bi lan moo laxasu ci ginnaaw ak lu tax ñu war a am san san ñu def loolu ay xale yàq seen àddu avenir nii nii wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.